إله إلا الله محمد رسول الله maa ngi jam maa ngi ci jàmm. maa mu mel ni xale bi nga xamante ni dafa lab tey. Euh, xam. xam naa ko xam naa ko bu baax ndax euh, maamam suma xarit la. ndeysaan. Hmm. Euh, ndogal yàlla nag bu ñëwee rek ñëw na. dëgg la. ma romb ci suma buntu kër ma toog. Hmm. ma ne ko Pape Samba. waaw koo mu ne ma géej uh-huh. ma ne ko géej mu ne ma waaw ma ne ko delluwaat mu ne damay dem géej loolu ci fekk midi passé na ah kon ay ay tagul ma yàgg noonu hmm. ma ne ko nag pasam Pape delluwaat hmm. mu ne ma déet damay dem géej hmm. a ah, ma toog léegi rek ba ñu ma wax ma xabaaru bi moo tax ma ñëw te teewe waaw lan moo tax mu romb la rek nga am yëg-yëgu ne ko delluwaatal kër xam naa ko ndax moom xel bi dafa neexul. xel bu neex boo gisee boromam xam nga. moom xel bi moo neexul. depuis yii nag yàlla dafa tudd rek pour mu dee ci géej bi mais. mënoon na dee. Mm. fekk papam du waajuram du duñu ko gis. ndax dafa njëkkoon dem. Mm. ñu wóor ko boo sonn. boo yàlla def feeñ ma feeñ mhm. mais léegi nag yii tamit mooy sababu bi waaw kenn mënu ci daal waaw mhm. nga koy ñaanal maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko te yéeka ñu yàlla ni xaa yàlla xaa ko àjjana ndax euh, nit nee nañu mhm. boo dee ci ñett ñett béréb dee ci accident dégg waaw dee ci accident maa la dee ci ci maa la dee ci la euh, ci ci ci lakk mm. nee nañu kooku saaw dina mm-hmm. kooku traçé dafa mel ko wàccan waaw mm-hmm. mais noo gisee sapeur yi dafa mel ni dañoo ñoom dañoo nañu yéex nañu yéex mm-hmm. ndax lu mel ni boo fekkee nit dëgg na dara dafa war a bàyyi lu mu defoon yëpp def ajusté mais yéex nañu wax dëgg yàlla te yéexaay bi waruloon waaw yu mel nii dafay di am fi nga xamante ne moom mooy Cambérène plage. fii toujours toujours day am. Ah. toujours day am. ndax man nekkuma ci géej bi man ci kaw la ah. mais toujours yi day am. waaw day am toujours. Ah, amul amul benn pexe bu ñu ci mën mu loolu wàññeeku. ñun xamuñu ci dara mënuñu ci dara. Mm-hmm. ndax xale yi ñoom moom seen bopp ku ku rek dem géej. dem géej. Mm-hmm. gis nga léegi léegi léegi bu ñu tiim ci néew bi. gis nga am na ñu ngi xam ni duñu jóge ci géej bi ko nag kenn mënu ci dara waaw. waaw bon maa ngi leen di sant bu baax a baax maa ngi lay sant bu baax. Mm. Eh, ñu ñëw fekk la fi nga xamante ne mooy plage du yàlla def li xamante ne moo fi xew nekk lu xam ne ñu ngi leen ci masawu mu nekk lu métti loolu est-ce que mën mbir mi la dem. mbir mi booy xool. géeju Cambérène dafa ne géej gu yaatu boo xamante ni nit mën na fa sangoo fu ne. Mm. bon man lima ci am nak moy dañ nu fekk nu tok suñu place rek nu wo sinu lool rek la ci jotta am instant bi quoi waaw mais mu melni euh, taxaway bi dafa yag ci li nga xamantene moy xaar bi ñu ne xaar chapeur waaw parce que sapeur sénégal boy xol ñom seen mbir dafa xawa yeex ta bo leen waxe dafa dé rek bala ñu ñew day yag ta lool nak mom vraiment war nañ ci jog quoi pour man yew biñ ko yew dafa yag parce que boy xol amna fi 3 heures 4 heures de temps wala ta lol mom vraiment mom buñ ci mënon jog dina bax quoi wala en tant que nit ko xamante parce que bala ñuy ñëw ci yoon am nañ laajte nañ tour ñu ni maître nage da ngay nek ci sauver doom adamay mhm. euh nga gis nit ku fi lab pour yow lab bi naka la mëna a fi fii mom moy gabal bon boy boy xol lab bi li tax mu am ni bu fekkoonte ni am na ay maître nageur yu nekk kato bi mu labe mun na bañ a am parce que boobaa dinañ ko gis bu dee dugg mais xam nga fi mu labee mooy terrain jamono foofu amul maître nageur te booy xool man interpellé na monsieur le maire pour wax ni que pour mu jël ay maître nageur teg côté boobu noonu parce que ville de Dakar indi na ay maître nageur comme ñun mais dafa am côté bu nu nekkee mais moom côté bi nga xamante ni dafa nekk si biir dëkk bi moom waroon na fa mën a teg maître nageur loolu doo nga waral lab bi am nii mais bu fekkoonte ni tey jii am na ñu fa nekk du demee nii quoi voilà. ñenn ñi si biir nit boo booy xool géeju Cambérène du zone interdit zone autorisée la. moo tax dañuy bàyyi ñu ñi di fi sangu mais tamit zone autorisée boo xamante ni léegi booy xool nit ku nekk moom moo dëkk si dëkk bi nit ku ne mooy ñëw ci géej gi soit dina am ñu mën feey soit dina am ñoo xam ne mënuñu feey mais nag zone interdite du tere dañ ko war a surveiller voilà loolu la. tey boo message booy lancé lan lay bi may lancé moom mooy di ko lancé waat suñu autorité yi nga xam ne ñoo dëkk Cambérène. mooy li may wax rek moo ñëw tey jii mooy li ma la doon wax sànq moom mooy dañu war a jël ay maître nageur dolli si maître nageur ville de Dakar yi loolu nag ki koy def moom mooy monsieur le maire defoon na ko daaw nag waaye ren wax nañ ko mais ba tey gisuñu mu def ko mais nag loolu yëpp moom moo ko war a def parce que tamit ville de Dakar mënul jël lépp moom mi nga xamante ni moom moo res population Cambérène moom moo war moo leen war a dimbali indi ay maître nageur dolli fi voilà. lap est na am lu bari. bon booy xool géeju Cambérène. Hmm. lap bariwu fi. souvent sax da xam naa ni li muy heure bii moo tax rek suba gi. Hmm. mais bu doon won ngi booy lébu yi nekk Cambérène buñ ko gisee dinañ gaawantu dem génne ka parce que ñun booy xool côté bi nu nekk mooy Cambérène 2 hmm. te foofu fa la ñi mënul fay baree moo tax ñu dem fa fi nga xamante ni nag ay lébu ñun ñoo fi nekk. booy lébu yi booy xool souvent ñoom ñoo leen di génne comme si biñ ko gisee rek muy nekk ci kaw ndox mi ni ko génnewee buñ ko gisoon bu muy dugg noonu lañ koy génnewee. bon booy xool terrain jamono hmm. sooy xool wàllu yaan yi dafa bari côté boobu noonu ñi fa mën fay bëriwul souvent ñi mën fay ngoon ngi lan fay du duñ fa nekk suba gi mais bu fekkoon fekkoonte ni heure bi nga xamante ni waa Cambérène ñu nga fa. lu mu gàtt gàtt bu duggee dinañ ko génne mais heure bi mu fa labee entre dix heures neuf heures heure boobu dafa fekk kenn te foofu amul benn nageur ñu ngi ñaan nag yàlla euh, monsieur le maire man yow laay wax nga dimbali ñu si ay maîtres nageurs comme ni ñu ko defee woon daal su ko defee zone yi nga xamante ni amul maître nageur mu teg leen fa voilà. merci jërëjëf merci. bon man la Guney ñu gën maa man la Issa ñu gën maa xam si Guney voilà.